salaamaaleykum mbokk si mbokk yoo téléspectateur Safi Sport ñu ngi leen di remercier bu baax ngeen ñëw tey jii di suivre seen premier numéro bu Safi Sport te nag maam contenté bu baax di recevoir un jeune talent jeune boo xamante ne nii mu ngi jógee ba Guédiawaye nekk sociétaire de Jamono de Fatick donc euh, ñu koy euh, présenté tey jii mu ñëw nag ngir wax ñu son parcours et puis euh, nan la def ba ex tay ji fu mu egsi parce que nekk na jeune yo xamantene ni ñu ngi leen di wax bu baax baax fofu le sa géejawaay donc lool mo tax tay euh, Safina TV doxantu tey dem jëli ko indil leen plateau Safi Sport pour mu wax len mom moy kan Ibrahima ñu ngi lay nuyu. ah ñu ngi lay fay sa euh di kontaan si invitation bi aussi di nuyu géejawaay bi ma jógee. Euh, nii sam papa sama yaay ñoom ñi nga xamante ne tey ñoom mun naa ne lépp ñoom la quoi. parce que bu ma demee ba ñu bàyyi ma muy football euh, dama naan lépp ñoom la quoi parce que <clears throat> mënoon nañ ma tere sama rêve. te defuñu ko quoi ñu ngi may jàppale. ba tey ma doon ki ma doon. di remercier aussi tamit euh, di nuyu sama waa koñ sama waa AIC président club bi nga xamante ne tey jii fa nekk jamono bi Fatick Adama nduur nuyu Issa ak euh, coach yëpp yi nga xamante ne tey ñoom ñoo fa nekk di ñu entouré euh, waaw maa ngi leen nuyu daal. justement Ibrahima euh, tudd nga léegi équipe bu ñu naan ASC bu ñu naan njaboot gi dafa mel ni yow njaboot gi moo la lancé. démb sax maa ci waxtaan ak euh, quelques uns de tes amis. ñu may expliqué ne euh, di ngay football ken xaar pour nga football la mo dugal ci football Ibrahim. waaw football mom comme xalé yëpp hein parce que bi ma si bi may maay fàttaliku bi may commencé di fooye football. Mm. sam papa bëgg ko won quoi. Mm. Ah, comme papa yëpp hein effectivement euh, parce que mom ci jang bi la gënoon bëgg ma concentré wu. bien vrai que bëggon na jang bi aussi tamit. mais football bi dafa ñëw naturellement quoi parce que suñ suñu koñ bi ñu nekk ñëpp football bi lañ mën boo xoolee ñi footballu sax mun naa ne euh, buñ buñ gi boo leen joxoon bal aussi tamit ñuy football. da nga da nga naan ñoo gën a ay ñiy football quoi. xam hmm. noonu la demee euh, ñu organiser woon benn tournoi foofu noonu Aminta Ndiaye. Hmm. Euh, moom moo organiser woon tournoi bi. Hmm. boole ñu ñu par catégorie la woon quoi xale yi ak mag yi. léegi ñun xale yi suñu waa groupe. ñu gagné si quartier bi yëpp quoi jël tournoi bi. après moment boobu yëpp nag bi may football dama doon laakoto des fois damay tàggoo jàng sama papa xamul woon maa ngi football quoi. damay sol samay yére yëpp jël sama saak au lieu ma def si samay daal mm. samay samay samay kaye mm. samay crampon laa siy def quoi. Mm. ak samay équipement mel tàggoo jàngi léegi bu ma demee ba heure match bi jot ma dugg sama benn kër copain sol samay équipement. Euh, pour dem pour dem jouer quoi ba benn jour grand yi ko ñi ñu ngi tok di waxtaan quoi Nan Victor amna amna relève quoi. Victor moo nekkoon capitaine wu njaboot gi. ne xalé bi ni bu màggee moy don relève Victor quoi. xam mom nak moma gëna si bokk na si ñuma gëna influencer a si football parce que dama daan dem diko ko entraînement njaboot gi. Mm. sama xol day neex quoi. Mm. damay content aussi mom aussi tamit ak ku ñuy woowee Yoro. Mm. Yoro bu nekkoon Djibo actuellement mi ngi woon euh, a saison prochaine saison passée mi ngi woon euh, Douane quoi. ñoom bokkoon nañ ñi nga xamante ne bu gënoon a tax man ma bëgg football quoi. par la suite la sam papa dégg grand koñ bi di waxtaan loolu fekk mu ngi jugee jaaxa mu ne non loolu mënul nekk nekkul Ibrahima moo dem di football quoi parce que jàngi la tàggoo. ba mu ñëwee kër ga waxtaan woo ma waxtaan ak man ma nekkoon ko dama jàngi mu ne ma non jàngi parce que dégg naa ne da nga doon joué match su ko affaire yooyu noonu xam nga ma ne ko papa lii sa dafa bokk si man quoi football bi euh, bëgg naa ko te aussi bëgg naa si concentré wu yàqalu ma dara ak ak jàng quoi sama passion la woon quoi. Mm, mm, mm. waaw nii la demee moom aussi tamit mu waxtaan ak man ne ma mënuma xëccoo ak yow parce que bon sama doom bu bu ma bu ma bëgg nga. aussi mais boole ko ak ak ak jàng bi waaw. ah d' accord après ma ne ko d' accord noonu la commencé ak aussi tamit sama mag yi jàpp si wax ak moom que ni tey xale bi bëgg na li muy def te mun na ko nañ ko si gunge daal noonu la demee daal. ci noonu ci nga commencé football cadet si ASC Njaboot gi buggee Géejawaay donc après ba ben, nga duggee cadet comment ça s'est passé euh, ci commencement bi est-ce que yomboon na trop ci yow wala pression bi xam football populaire moom da ngay da ngay ree ba tas soo gisee sax lu tax parents et duñ d'accord ci football populaire bi moy affaire mystique ci am affaire yu xon yoy violence ak yoy yep est-ce que c'était facile pour toi tu début bobu non waaw au début mom euh, c'était pas facile quoi hmm. parce que après ya ngi nekkoon ci di di di football euh, football quartier hmm. jékki-jékki ñew

jaaroon na yoon aussi tamit parce que nekkoon na loo xamante ne ni permettre na ma ma gën a am benn benn facilité bi si biir terrain baa nga xamante ne lépp lu ma bëgg a def dinaa ko def yàlla jàppale ñu année boobu sama première année ñu jël ñu jël trophée bi quoi zonal ñu gagné ko mm. noonu daal euh, après si lañ si la si lañ ma commencé yenn opportunités yi di génn ñu gë ñu bëri gën ma xam aussi tamit ñu bëri doon ma xaar aussi. parce que xalaatuñu woon ne bon dina dina man mii sax xalaatuma ma woon ne dina gaawee noonu quoi. parce que lépp affaire yi waaw voilà quoi dafa dafa ñëw vite fait après. noonu lañ commencé daal di gën a concentré wu di pour xam ne tey war nañ mën a am dara si si football bi quoi. di fàttali rek ne ñu ngi am tey comme invité Ibrahima Sarr bi nga xamante ne nii euh, défenseur la di évoluer fële nii sa jamono de Fatick nekk D2 en équipe en en en Ligue 2 sénégalaise donc Ibrahima Sarr mi doon wax tey ji son parcours Ibrahima ci loolu noonu donc euh, après gis nañ ne ah, jamono di dox ñu dem ba ci yàgg euh, équipe bu Guédiawaye FC di équipe bu faar bu nekk foofu noonu gis la ba mhm. mu la gisee euh, mu euh, indi la ci équipe bu U19 bi mhm. et puis est-ce que est-ce que ça a été aussi facile seen seen seen connexion boobu noonu entre euh, njaboot gi ñu bàyyi nga dem ci Guédiawaye FC est-ce que yomb na ñoom ñu bàyyi la. si au au début. parce que d'habitude joueur uh-huh. joueur nawetaan yi bu ñu fëlee rek quartier danañu bëgg a téye pendant une uh-huh. certaine durée. ba ñu xaw a màgg tuuti ñu doog leen bàyyi. si dëgg la mais xam nga. tey bi may dem foofu. Mm. Euh, maa ngi fàttaliku quoi maa ngi aminte bi nga xamante ne moom moo organisé woon tournoi bi ma la doon wax noonu. Mm-hmm. moom moo ñu woo téléphone ne ñu Ibrahima ma ne ko waaw mu ne ma géejawaay am na ay test yu fa am te ren saison bi nga def si nawetaan yi warul nul noonu quoi nga nga concentré wu dem foofu def test yu quoi. Mm-hmm. bi ma fay dem sax maa ngi boobu boobu ba léegi maa ngi amoon âge cadet mm-hmm. mais après.

adjoint coach su U19 euh, bi jiili gis ma mu ne ma wax kii booy njaboot gi la ma ne ko waaw mu ne mu woo coach bi coach principal bi Laye Guèye ku ku def lu bëri nag si sama sama sama carrière quoi mm-hmm. Laye Guèye moomu mu waxoo ne ko ak central gauche mi ngi nii mu ne essayé ko mu dugg mu joué mm-hmm. léegi ma dugg di joué même pas dix minutes mu wàcc moom mi ngi nekkoon si tribune moom moo wàcc mu ne mu woo ma ne ma Ibrahima kaay ma ñëw maa ngi doon wax ne man ah bon peut xam naa man lu ma def fii dara baaxul quoi affaire yooyu noonu xam nga parce que boobu maa ngi gën a nekk xale affaire bi kii ma quoi ma ñëw mu ne ma say papier mun nga ko andi parce que dama bëgg nga gisante ak président bi affaire yooyu noonu mm-hmm. bon te si jàll nga quoi. Mm-hmm. xam nga mm-hmm. man après si la ma yenn gars yi wax ne ma ne ma vraiment li mérite la quoi parce que si biir euh, temps bu ndaw bi nga joué nii. gis nañ lu bëri si si kii quoi affaire yooyu noonu. te ñoom ñoo ma fi jiitu woon. Mm-hmm. noonu laa ñëwee commencé adhéré si équipe bi euh, ba ñoom aussi tamit waa waa njaboot gi aussi tamit kontaan si bu baax quoi. Mm-hmm. malgré que li ma nekk foofu ñoom ñu ngi may suivre bu baax di ma teg si yoon. Mm-hmm. di ma gën a encadré pour que ma ma avancé quoi. noonu la intégré Guédiawaye U19. doon joué si U17 euh, bi doon joué waale aussi tamit U19 bi quoi. Mhm. léegi nouvelle boobu naka la sa sa parent wala particulièrement sa papa naka la dundee nouvelle boobu tey jii. ah sama tey jii ne doom mu ngi mhm. football ci équipe bi gën a mag géejawaay. si war a doon si jour boobu maa ngi koy fàttali ko bu baax a baax a baax. Mhm. maa ngi ko fekk muy euh, muy muy muy yor kurusam di wér. ma toog moom ñu waxtaan. xam nga ma ne ko man fan yëpp maa ngi doon def test géejawaay quoi xam malgré que tàgguwuma la woon. parce que xam naa ne bu moo la tàgguwee parce que matinal bi noonu. da naan ma dem di nga tardé ay cours. après ma ne ko mais jël nañ ma quoi moom jour boobu tamit kontaan na bu baax. parce que xamoon na ne nii rek la mënoon demee quoi parce que xamoon na ne man dem naa benn sans amour bi mi ngi fi woon. xam te aussi tamit passion bi tamit mi ngi fi si la gën a kon moom mu gën a kontaan que ne moom bis boo góorgóorloo. bon fi nga nekk ni di nga fi di si avancé te aussi tamit dinañ la dégg fu sori quoi xam nga xam ne ma xamal ne aussi tamit euh, sama yaakaar nga quoi xam nga jour boobu nag laa gën a am motivation que ni man bon war naa mën a war naa mën a gën a gën quoi am nga ndigal waaw ma xam ne war naa gën a mun a liggéey mm. parce que tey ji loolu rek poids la quoi mm. parce que nga toog sa papa ne li ngay def am naa si yow yaakaar mm. loolu rek dafa rëy quoi Euh, mais est-ce que amoon nga tey ji difficulté. pour intégrer le milieu professionnel parce que bu ñu waxee Guédiawaye FC. club pro c'est différent ak njaboot nga club amateur la. wala est-ce que yow sentir que dëgg-dëgg benn différence entre football bi football nawetaan ak football mm-hmm. professionnel am différence wala amul différence pour ñu seetaan am différence bu bu mag quoi. différence bi différence que fait mm-hmm. euh, mun naa ne boo comme euh, nawetaan bi. Mm-hmm. comme ni nga ko amateur parce que yene affaire yu bëri bon mun nga amaale ay lacunes yu bëri du feeñ. du feeñ ko parce que benn trois mois la. Mm. mais fële saison ngay joué te fee dafa am euh, entourage bi dafa mag. Mm. ñu bëri dinañu xool ne kii lii la fii la nekk euh, fii lañ ko war a jëlee pour yóbbu ko fii. te loolu liggéey bu bu rëy moo quoi te am suivi parce que maa ngi fàttali ko bi bi nga xamante ne jël nañ ma ba ma intégré équipe bi mm. def naa deux mois yoo xamante ne nii commencé woon naa découragé quoi commencé woon waaw entraînement yi métti woon intense mm. aussi bëri woon na ay défaut yoo xamante ne ni sama côté problème ci côté technique mm. tactique yëpp euh, nekkoon na si man quoi yoo xamante ne tey jii man xaw ma ko woon mais ñoom gisone nagn ko si si man hmm. ba ñukoy doom jema, dindi si man euh, defar ci man lu bari lolo tax ma ne la laay géey moomu noonu euh, mu nekkon suñu entraîneur hmm. def na man lu bari quoi sincèrement hmm. parce que bari woon ay ay défaut yo xamanteni ne na si man côté placement déplacement yépp ama moko don ko def ci man da na da na entraîner sax nit ñi groupe bi di entraîner man ñu berme individuellement di ma defar ay travail ba man sax maa ngi si wax sama benn ah, suñu gardien bi mm-hmm. ñoo may ancien lañ foofu mm-hmm. maa ngi naan ko ndeke man xaw ma woon dara quoi parce que milieu bi ma nekkoon ak millier bi. beneen maa ngi si beneen niveau quoi. Mm-hmm. xam nga si la ma expliqué ne ma concentré wul te xam ne tey moom am na lu mu gis si yow moo tax muy <coughs> muy jël temps bi yëpp di ko def si yow kon xamal ne yaa ngi si yoon bi quoi.

xam nga année boobu laa jóge ma jël meilleur joueur junior. junior waaw ma xam nga léegi si lañ si laa pare ñu ñu ñu ah, ñu yóbbu ma si équipe A bi. Mhm. xam nga yoon ma contrat. Mhm. ma ma signé comme joueur professionnel. Mhm. Euh, après si année boobu noonu la club Guédiawaye bi am problème mooy mooy problème mu Jamil Faye bi ak association bi. si lañ nekk di lijjanti affaire yooyu noonu. comme après si dama Jamil expliqué que ni ren wóoragul pour ñu jouer parce que équipe bi mu ngi nekk euh, ku nekk di lijjanti ba ba mu demoon tas affaire yooyu noonu ñuy xool ba xam ni ñuy régle pour ban ban club moom moo si jouer parce que ñaari géejewaay ñoo amoon. te en tant que xale. Mhm. aussi e, mu expliqué ma ne ma tey boo toogee jouer woo. Mhm. dina dina dina xaw a tardel si sa sa carrière quoi bu ma amoon lu ma gënal. Mhm. nga nga dem Kayor Foot parce que équipe bu jeune la xam nga ay xale rek ñoo fa nekk boo fa demee di nga am temps de jeu bu doy. parce mm-hmm. que tamit di nga am yenn opportunité. Mm-hmm. bon dinañ la gis quoi. Mm-hmm. mu nekkoon national une. ma ne ko waa ah, d' accord. après si laa dem foofu. ma joué année boobu. Euh, Kayor Foot daal loolu moo ma yóbbu Kayor Foot. moo yóbbu Kayor Foot. Mhm. donc loolu day indiwaat question bu ñuy wax est-ce que tey jii les clubs euh, sénégalais. Mhm. est-ce que vraiment ay clubs professionnels parce que ay bit yi ñu génn ñëpp comme ni ko xamé wa fédération ñu doon def ben symposium. Mhm. pour euh, def bilan 12 ans de professionnalisme de de la ligue. légui nak en tant comme tey am nañ ben ben ñu koy waxee benn acteur. bo xamanteni championnat ba la nekk. naka ngay jàngatee professionnalisme bu ñu am ci ligue nationale bi. waaw. euh sant yalla quoi. Mm. parce que affaire mi ngi mi ngi avancer mm. mi ngi avancer bu baax parce que xolé euh, chaque année di nga gis changement si si si milieu professionnel bi. mais Ibrahim est-ce que waxoo pour bañ créer le problème. non même pas même mm. pas parce que xam nga parce que bu ñu euh, dañuy chaque saison day am problème bu bees chaque saison ñu ñu xol gis ne am y a des problèmes dans les clubs sànq rek man ko don waxtaan sa ak ben ben ben connaisseur mu né ma da nga ñëw championnat Sénégal les clubs ne sont pas structurés. duñu respecté cahier de charge yi am na jour yoo xamante ne sax amuñ sax benn bulletin de salaire boo xamante ni ça va le permettre ñu jot seen salaire à temps est ce que yow tey ji loolu da ngay confirmer wala doo ko confirmer waaw loolu tey ji mun am na d'une part am na quoi mais nekkul nekkul club yëpp ñoom ñooy am ñooy am problème boobu noonu parce que parce que tey ji man bu ma jël exemple parce que club yi ma jaar man si laa moom laa xam quoi si laa mun a wax parce que boo xoolee tey ji club bi nga xamante ne actuellement moom laa nekk nii bon amuñu ben ben problème si côté salaire sincèrement. Hmm. parce que à temps hmm. parce que tey des fois euh na am tardement. Hmm. parce que tey comme problème Covid bi jàll ni équipe yu bari lolou daf leen touché won quoi xam mais aussi président yi dañuy ñun waxtaan ak ñun xamal ñu li nga xamantene ne tey jii fi nek xam aussi tam yow yo acteur bi da ngay comprendre parce que tey jii bo bo bo xoolee euh, pro Covid bi. ñëpp la touché quoi. ñëpp la touché xam mais bu ñu waxtaanee. Mhm. déggoo nañ si ay kàddu te aussi tamit sant yàlla quoi ba nga xamante ne suñu salaire yeeg euh, côté prise en charge bi. Mhm. lépp voyage yi aussi tamit yëpp euh, mi ngi doon mi ngi doon jaar yoon quoi mi ngi doon jaar yoon vraiment. championnat bi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi évoluer si côté professionnel bi professionnalisme bi quoi mhm. mi ngi mi ngi évoluer bu baax parce que dafa am ñi xam ngi euh, donc championnat bi fimné ni c'est pas beaucoup visible c'est pas beaucoup visible euh, par rapport ak numéro bu njëkk ba donc lool tay ji motax ma poser la question bobu non pour bëgg xam dëgg-dëgg ba xam tay championnat bi un une une une un avenir un bel avenir ou pas wala nekk na championnat boo xamante ne nii comme ni nga waxee championnat morne la maanaam day judd rek dee wala championnat la boo xamante ne nii fii ci biir mën nañ ko teg ci télé yi comme ni nga ko commencé gis ak RTS donc moo tax ma doon laaj question boobu noonu parce que l'ancien président bu Pikine bu AS Pikine Euh, mon ko doon wax un championnat franchement c'est vrai football ci ay terrain ak souffle souffle yi donc yu baax la mais mon bu sañoon tey jii ñu gën a professionnaliser club mhm. j'aurai un am ay bulletin de salaire Et je pense que loolu non, donc day doon ko du mérite hein, Ibrahim. Hmm. boo xoolee lu mu wax ben le côté am quoi dañ d'accord parce que tey côté visibilité bi hmm. pour man des na tuuti quoi des na parce que boo xoolee équipe bu Ligue 1 bi Ligue 1 yi ñoo ñoo ëpp visibilité quoi parce que seen match yi da xool ñu ngi koy jàllale si télé yi par rapport ak Ligue 2 bi quoi Ligue bi boo ngay gën a li ngay gën a avancé si la ñuy en fonction say match yi ngay def si la ñuy xam jour bi kat euh, mi ngi mi ngi mi ngi progressé xam nga si la ñuy club yi di gën a ñëw ak aussi tamit résultat euh, équipe yi quoi mm-hmm. si la ñuy doo commencé di xool ba xam club bi kat lii mi ngi fi. tu comprends. non la fa demee quoi mais mais pour euh année yi ñu mhm. euh pas wul won nonu mhm. nga mhm. yooyu yep amu fi won légui télé commencé di. di aussi championnat bi te lolu suñu suñu sens ñun ñi nga ne quoi. pour yow lolu lolu lan pour yow lan mo waral dëgg télé yi commencé gis parce que xam nañ niveau bi parce que Europe mhm. actuellement joueurs mhm. sénégalais yi lañ ciblé quoi si à si U20 bi U23 bi xam nga c'est sélection petite catégorie yëpp ama. nga ba si locaux yi ñu ngi def ñu ngi def performance yu yu baax tey loolu moo loolu moo gën a tax euh, ñoom aussi tamit xam nañ ne am na lu fi nekk si championnat bi xam nañ ne ay jeunes talent ñi ngi fi euh, que bu ñu leen jàppalee rek dinañ dinañ dinañ sori quoi waaw moo tax ñoom ñun comme yéen ak ñeneen ak ñeneen dañ leen di gën a xama encouragé di leen gën a wax ngeen gën a jàpp si liggéey bi daal parce que acteurs yi ñun acteurs yi yéen yéen ñu mën a tax te ñu yegg fu sori quoi sincèrement waaw. litige bi am ci diggante euh, Linguère bu Saint-Louis ak euh, Kër Madior naka nga ko gisee defe naa ne xam nga litige bi mu demee mooy que euh, Linguère dafa war a football ak Kër Madior te Linguère comme ni ko gars yi Euh, module deuxième du championnat de Ligue 2. Mhm. Euh, génération foot euh, comment dirais-je Guédiawaye FC module premier premier ci championnat Ligue 2 bi. Mhm. mais sauf que Kër match de football match ak Linguère nous ko waxee les mais voilà Linguère dañoo ñëw fàtte cette licence. jour match bi. Mhm. ñu ñu ñu ñu ne leen da perdre match sur tapis vert. donc cinq sànq ba tey information bu gënaat selon la quelques match bi dañ koy rejouer c'est-à-dire que suñ ko rejouer waatee bu gagné Linker champion nek champion. Ligue 2. Mhm. est-ce que du injustice wala yow ou nga ko gisee tay euh, xawna parce que côté côté euh, club Linker mom sori bu baax parce que parce que maîtriser wu ma club mais parce jour préparé match ba ba ba ba jour bi ñu ne la ñii seen licence génnul nga gagné sur tapis vert xam nga tey jii yaakaar naa ñaari club yëpp def nañ lu ñu waroon def ba pare ñëw nañ ba si ah, préparé wu nañ ñëw nañ si stade bi jour match bi donc football nekkul nekkul côté côté. Ah, si biir terrain bi kese ngeen joué gagné après dem administratif bi daf si am daf si am pour pour man sax loolu mooy liggéey bu ëpp importance quoi xam donc comme loolu dem dem na ba nga xamante ne tey jii euh, mi ngi commencé am andi kii euh, fédération bi rek moo mun a moo mun a régler loolu quoi.

xam nga mm-hmm. parce que boo xoolee si papier loolu moo am. Mm-hmm. tey bu ñu ñëwaatee aussi tamit nar a andiwaat loolu mun na andi yëngu-yëngu si championnat bi quoi. mun naa ni yëngu bu championnat bi. parce que neexul aussi tamit euh, nga nga nga nekk nga féete sa champion ba pare. Mm-hmm. ñëwaat ñu ne la match bi da nga koy joué. te aussi instant bi yaakaar naa équipe yëpp ñu ngi préparé wu euh, pour saison pré saison yi nii. tay bu ñëwaaté tégal leen ci leneen la mu na mu na mu na jaxase sax xélu jour yi quoi duñ passal képp képp bépp jour euh loolu noonu bu bu la arrivé dina la xaw a touché quoi parce que imagine tay ji bu fekkoon joué nañ match bi buñ ko joué waatee Linguère gagné après lan lay andi loolu yëpp ay question la yoo li Linguère kay bu gagné mooy champion mooy champion waaw waaw tay ji loolu yëpp ay question la yoo xamante ni fédération bi aussi tamit war nañ ko quoi bu franchement nous ngi ñu ngi lancé benn appel ci fédération bi bu ñu euh, régler problème boobu ñu régler parce que match li ñu on la gagne sur le terrain et pas en dehors parce que c'est vrai que côté administratif comme ni ko Ibrahima waxee dafa am solo trop trop trop ci football mais football franchement. Euh, on gagne sur le terrain on perd sur le terrain donc euh, ñun faraluñ kenn faraluñ Linguère faraluñ GFC mais nag que le meilleur gagne comme on dit match bi dañ koy rejoué waat ñu ngi xool fu wànnante ba tam hein, Ibrahima voilà voilà c'est ngi Nous di rek ñu invité football de de fatigue donc euh, nous avons invité Nous koy remercier bu sa présence sur Safina TV donc c'est un honneur hein, parce que c'est un frère comme nous euh, dit. Euh, parcours trop parce que comme nous l'avons raconté jaar avec euh, ses parents jaar-jaaram si koñ et tout donc c'est un c'est un joueur bo xamanteni ni et c'est un homme bo xamanteni ni il est à encourager parce que ñu yaakaar ci moom dañoo bëri trop trop trop trop. justement si koñ bi sax lay waxat moy ay seen njaboot gi boobu noonu. naka ngay expliquer le fait que ngay jouer championnat ba pare di di jouer nawetaan bo xamanteni ni da ngeen nek euh, en vacances. est ce que yow tu trouves ça un petit peu normal ou pas est ce que joueur pro war na jouer nawetaan. waaw parce que parce que boo xoolee. Euh, bu de Ligue 1 nga genre de faire plus de 5 matchs. Mm. wala six bon droit jouer c'est interdit même si club même Ligue même Ligue président club mm. autorisé jouer. d'accord mm. autorisé jouer euh, jouer parce que contrat Euh, joueur moom bu nekkee si contrat lépp lu muy def club bi da si war a si war a daf fekk daf fekk yow euh, méngoo na ak contrat bi tey bu ñu jëlee vacances euh, président ay ASC njaboot gi bi c'est un frère dafay sonn si ñun di ñu defal lépp même en dehors football relation bu baax lañ am man ak moom léegi daf ma expliquer wax ma situation koñ bi xam nga pour njaboot gi waaw expliqué ma ne tey jii il faut que nga ñëw jàpp si quoi parce que au début métti woon na métti woon na benn instant te man mun naa ne lépp lu ma am tey ji si football njaboot gi moo tax xama donc bu ñu ma soxlawee te ma war a mun a disponible pour mun a jàpp jàppale sama sama bopp. ma que koñ bi sama koñ la fii laa juddoo fii laa defee lépp. donc duñ duma duma gis mu am problème bi nga xamantene tay ji man warna ci mëna xam andi sama plus mhm. ma sétane len mhm. ma expliquer mané ko ah comme vacances nek légui man dina laaj sama président club waxtan ci ak mu ma xol limi limi wax quoi xam légui adama ndour mhm. légui ma ci waxtane ak mom mu ma amul ben problème mën nga japp ci sa forme fofu non maintenir ba période bi nga xamante ne tey ñun soxla nañ la. après nga rejoindre ñu quoi. xam nga loolu moo waral tey ji ma ma ma sama sama koñ quoi nawetaan. léegi hmm. hmm. au passage may nuyuwaale Moustapha hmm. Moustapha Ndiaye président ay seen njaboot gi. ak dirigeant yëpp quoi. maa ngi leen di nuyu. ñu ngi leen di nuyu nuyu ah, bu baax a baax a baax koñu njaboot gi ICA bi ak waa yeneen ICA nekk su gox ba yëpp ñu ngi leen nuyu mooy diisoo juboo ñoom ñëpp franchement. Et Dao, vous avez terminé 8e du championnat de Ligue 2. Mhm. Donc, vous n'avez que performance pour Certes, vous avez mais aussi Yego Lenchika. Parce que, mais voilà, là, nous avons un problème de, de, de, de Dao, de fatigue. vous n'avez pas réussi à être 3 premiers ou 4 premiers du championnat Ligue 2. Wow, là, nous une question qui import, importance. Quoi. Hmm. Parce que, début de saison, il y a foofu lañ foofu lañ defee ay ay contre performance yoo xamante ne tey jii moo ñu moo ñu coûté deuxième euh, saison bi mm. deuxième kii ba phase phase retour yi mm. mu xawoon mu xawoon métti si ñun quoi parce que tey jii bëri na ay match yoo xamante ne ni si phase aller yi ay match yoo xamante yu ñu waroon gagné la au pire des cas mënoon nañ si am match nul match yooyu noonu lañ perte xam nga même défensivement aussi vous avez encaissé beaucoup. beaucoup de buts loolu moo nekkoon défenseur que ngay justifier loolu noonu. euh... est-ce que aussi attaquant n'ont pas fait de de de pression voilà de leen bàyyi sa ak seen bopp rek wala expliquer parce que d'habitude. bu équipe buy le but yu bëri li ñuy gën attaquer mooy la défense wala le gardien. donc yow tey est-ce que naka nga dundee woon situation boobu noonu foofu sa jamono de fatigue Wow situation bi xawoon na xawoon si man trop euh, parce que personnellement là ko jëlee quoi parce que même bu fekkee match def nga match bu baax. te gagné wala nga encaissé bi si défenseur. bon du neex quoi du la neex quoi goudi bobu dina metti dina yag trop xam nga trop si ñun parce que ben chargé la kaw quoi. parce que tay équipe bi en contre performance bobu non c'est c'était collectif. xam nga ñëpp nañ équipe bi certes. problème de coach la ou le problème de lan la woon. waaw parce que tey situation yooyu non bu amee la plupart dañ koy dañ qui kii coach bi quoi Ni bari coach la ñuy wax xam nga ñii ne défenseurs yi ne attaquant. yi. mais nous donc nga koy jëlee côté côté collectif quoi. problème bi problème collectif la won. xam nga tey match dañ ko doon jouer, bo boo xoolee ay dernière minute yooyu ci dernière minute yooyu non lañuy jëlé jëlee bi te yaakaar lolu doute dut moo waral. et bu commencé di di am doute rek yooyu da siy bëri quoi xam mais bon président bi coach coach yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu yoroon xam nañ amoon nañ si si si si ah, si ñun confiance que ni lii benn phase la boo xamante ne ni dina jàll. parce que loolu dina dal équipe yu bëri si euh, nga nekk si biir saison di def ay. contre performance yoo xamante ne tey ji après dina mën équipe bi si côté côté bu bu bu négatif quoi. parce que boo xoolee position bu ñu nekkoon équipe bu ñu joué sax bu ñu yow ba pare yow di nga di ne waa mais yéen lan moo tax ngeen di ngeen di perte match yi nii quoi. xam même équipe yi nga xamante ne ñoom lañ doon dajal suñu adversaire dañ doon. la question boobu non fay da ngay xamné li lii moment la bo xamante ni bu am waroon am la si si si sa si sa si sa si sa carrière. da ngay liggéey pour mëna a fofu nonu noonu quoi. du coup ren objectif lan la lan ngeen bëgga a nekk euh, trois premiers yi wala ngeen ngeen. ngeen yéeg Ligue 1 ou bien lan moy objectif ren. waaw ren mom objectif yi dafa dafa clair quoi. xama parce que tey président yi waxtaan nañ ak ñun aussi tamit entraîneur bi nga xamante ne tey Euh, moom moo ñu yoroon si euh, dernière phase yi aussi tamit waxtaan na ak ñun ñi nga xamante ne tey ñun ñoo fi nekkoon aussi ak joueurs yi nga xamante ne ñoom pare nañ pour liggéey ak ñoom xam waxtaan nañ ak ñun que nii ren seen objectif principal mooy euh, monter. xam nga même ñun joueurs yi aussi tamit suñu objectif même ñoom buñ ñu ko waxul woon ñun suñu objectif loolu la parce que xam nañ ne groupe bu ñu yor. du yoon ñuy ñuy ñuy ñuy ñuy ah, waaw ñuy nekk si millier tableau bi war nañ nekk si kaw te personnellement loolu dafa nekk loo xamante ne ni suñu suñu objectif la quoi waaw nekk si si deux premiers yi pour mun a euh, monter en Ligue 1 quoi ren bokk loolu bokk na si suñu objectif quoi Ibrahima daanaka waxtu bu ñu cërale woon jeex na donc fi ñuy terminer rek mooy euh, nga wax ñu spécialement yow lan moy ce plan de carrière manam lan moy objectif personnel tey jii Ibrahima buñ ko yewon xaju guddi ñoo Ibrahima lan moy ce plan de carrière fo bëgg football ak euh, naka nga gisé tey jii sa avenir lan nga ñu tontu Ibrahima. waaw euh, comme comme tous les jours ah. tey jii ren suñu objectif bi nga xamante ne tey jii sama objectif bu gëna mak euh moy am match yu bari xam def performance yu baax. ba sélectionneur yi nga xamante ne tey jii ñoo nekk si équipe nationale bi xam mu sélectionné ma pour ma dem jouer équipe nationale quoi xam nga loolu bokk na si bu baax bu baax xam nga objectif la boo xamante ne tey loolu dama koy dama koy te daala di koy yeewuwaale te maa ngi liggéey si loo xamante ne tey jii war na ma mun a permettre que ma ma ma yegg foofu noonu ko xam après euh, fin saison bi ma ngi ñaan yalla am contrat professionnel Europe ba mëna jouer si si équipe yi nga xamante tay ji ño nek ci sama rêve quoi sincèrement. nan mo sa club de rêve. c'est mon club de rêve euh, mooy sama sama sama équipe préférée Barça ak Manchester United. Ah, Barcelone dal depuis ma nekk xale. Hmm. bon mom mo nek sama équipe quoi. ah, sama équipe de cœur Barcelone là quoi. Hmm. mais pourquoi pas jouer en championnat Angleterre. Hmm. waaw bëgg naa ko quoi bëgg naa ko trop parce que championnat boobu neex na ma trop quoi. Uh-huh. Ibrahima waaw sama dernier moom mooy euh, di comme ni ma la ko waxee woon rek euh, ni sant sam samay samay parents quoi sant samay parents non loolu moom muy sama papa di sama yaay surtout sama yaay sama yaay moom mooy sama lépp hmm. xam si lepp lu ma duma du du day melni sax mom mom mo gëna son ci si si sama sama sama sama carrière quoi moom moo ko bëgg donc dama koy sante diko gërem euh, di sante sama président club Adama Ndour di sante aussi Issa ak sama entraîneur ñom coach Tans coach Fils ñom ñep coach Ousmane ñom ñep ma ngi leni ma ngi leni remercier quoi di leni di leni nuyu aussi tamit nuyu sama wa koñ parce que lepp ñom la quoi surtout xale yu ndaw yi bu may bu waaw dañ dañ siy sonn quoi dañ si sonn bu baax ñoom man ñoom ñoo tax sax may may gën a di di donné lépp li nga xamante ne nekk na si man pour ASC bi. aussi tamit di nuyu euh, suñu coach yi foofu euh, ñoom ñoom Père As xam nga Babacar Ndiaye Mansour coach Mbaye ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu di aussi tamit président bi bu ma nuyee président bi rek nuyu naa euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk si ginnaawam yëpp. vraiment maa ngi leen maa ngi leen di nuyu di nuyu aussi tamit euh, sama sama mag Pape Sarr mm. maa nuyu Babacar mm. ñoom ñëpp ak sama doom baay ñoom ñëpp vraiment kontaan naa si ñoom quoi kontaan naa si ñoom gis naa niñ may niñ may soutenir te aussi pare naa pour def lépp pour ñoom quoi sincèrement mbokk yi lii la woon seen émission Safi Sport c'était aujourd'hui avec Ibrahima Sarr défenseur de Diamono de Fatik en Ligue 2 sénégalaise donc comme nous le savons, c'est un jeune talent à suivre donc Ibrahim, ñu ngi beaucoup, remercier beaucoup beaucoup si euh, Nango bi nga nangu te Safina TV Je remercier aussi grand bi le grand Papsar. donc c'est un grand boo xamante aussi mu ngi lay suivre bu baax le film France donc lépp lu muy def yal ko Barkel et tout Je remercier aussi équipe de Diamono Je je remercier aussi équipe bu ASC euh, bu njaboot di sante aussi suñu cameraman tey jii nga xamante ne moo Samba Mamadou si sante wa rédaction bu Safina TV yep di leen wax ne c'est toujours comme ça ici euh, ci Safina TV une émission Safi Sport chaque samedi lañ koy tek inshallah fi ci Safina TV dañ jox dik daje ba beneen samedi inshallah